dellu si rek di leen wax ni leen euh, COJER di li nga xam ni moo ëpp ëmb képp kuy ndaw di jeune nekk républicain rek COJER moo la ëmb tey nag ci kaw loolu bu ne convergence des jeunes républicains de Saint-Louis nga xam ni sunu président de la république monsieur Macky Sall daf ko teg teg ko ci ay loxo ndaw pour ku ne département ba nga ne nga liggéey pour sa ndaw tey bu ñu demee ba COJER boobu nga xam ni muy instance ci biir parti bi nu gis ni kat ñun doomi Ndar COJER ni muy doxe neexuñu benn ci faute d'âge ci ki nga xam ni moo ko jiite beneen ci li nga xam ni mooy cercle vicieux bi nga xam ni danoo yore COJER te ni muy doxale neexuñu ndax benn jeune gisu ci boppam tey cent yoo wàññi biir ndar nu nekk ay jeunes nekk moins de trente cinq ans jàpp dix huit ans koo ci laaj définition COJER mun la xamuñu ko ba loolu amee nag ci la ñu ñun en tant que ndaw génn ci élection yi xam ni kat monsieur le ministre maire Amadou Mansour Faye tey fu bëri fu mu ñàkk ci biir ndar ndaw yi ñokk ko teg ci leen ni kat ñun en tant que jeune républicain daanu jéem li nu mën pour xool instance bii nga xam ni moo nu yore te jiital ñu nan la ñuy defee ba mu gën a rafet sanu taxawaay ci li nga xam ni président de la république mi ngi koy liggéey di ko doxal te kat kenn siiwalu ko ci internet bi amaana sax bu dee siiwal nañ ko li ci jeunes yi waroon na mën a participer ci défendre le réalisation bi président amul rawatina nag ki nga xam ni mooy jaraafu dëkk bi di Amadou Mansour Faye di sunu njiit ñun ñëpp ci la ni nag daanu wàcc ci 33 gox yi muy fanweeri gox yeeg ñett yi nga xam ni ñoo nekk ci biir Ndar xool jeunes yi nga xam ni conscient nañu ci seen avenir nu waxtaan ak ñoom wax leen li COJER war a doxe te doxewu ko ñun nag xee xeexunu ak nit xeex ak nit taxunoo jug xeexunu ak kenn dañuy xeex pour suñuy droit droit yi nga xam ne ñoo ko moom droit yi nga xam ni tey COJER moo nu ko ëmbal lu jëm ci wàllum liggéey lu jëm ci wàllum tettanu parce que nu xam nan la ñuy def ba am ay formation war a mën am ay euh, ay financement pour mën a teg suñu propre projet mais loolu yëpp amaana ñi nga xam ni ñoom lañ fi teg ñu jiital ko gère doxewuñ ko bu loolu jugee nag ñu ni faute d'âge bu nee wàllum faute d'âge ka nga xam ni dañ ko jiital app ban ko mayoon ak âge yan ko mayoon pour mu jiital dafa weesu am na juróomi app déjà ba mu amee 35 ans kon nag weesu na ñu ni ko nag léegi ñun ñi nga xam ni sax ay rakk lañu ñun danu bëgg nga wàcce lenge yi jox nu ñu nit ñu jiite bu ñu jugee jox sunu ay rakk ñu jiite ndax loolu mooy nguur